voilà mbokk yi ñu ngi leen di nuyuwaat bu baax a baax di leen siyaar ñu ngi fi nga xamante ne moom mooy Pikine ñëw fekkee si open press booy ñaa ñu ngi fi nga xamante ne moom mooy terrain bi dend ak Croix Rouge bi euh, dernier réglage yi la gars yi nekk xanaa rek ma laajte leen tuuti euh, nu ñu préparé affaire yi wala organisateurs yi parce que yaakaar naa li ci des bariwul sa waay ngi wér salaamaaleykum jëwriñ maaleykum salaam wa rahmatulah nga présenté wa rek waaw waxal kilifa gaa ngi nii mooy Ali Aram Ndoye bu Boy Niang salaamaaleykum jëwriñ maaleykum salaam waaw jëwriñ mbaa yaa ngi ci jàmm sant yàlla bu baax a baax gis nañ leen yéen a ngi dernier réglage yi euh, pour press ki nga xamante ne moom mooy Boy Niang taxaw bi lan moo ko waral non ni toll ni moom noonu rek waaw ba pare mbër bi daa pare daa pare na bu yàgg gis nañu euh, ki nga xamante ne moom mooy adversaire am mu ngi koy jéem a euh, yëngal jëm koo attaqué woon ko ni daf koy song xeex ak moom et tout euh, nan ngeen liggéeyee ci loolu. non Boy Niang daa am staff. Hmm. Boy Niang yorul staff ndaw staff mag la yor macha allah. wax yu ndaw moom mun a yëngal Boy Niang Boy Niang pour nga déstabiliser ko ci làmb yombul. ay bis yu mag bëri na ko. bis bi bis la rek yeneen bis yi nekkul beneen bis boo xamante dañuy dépassé wala mu yóbbu ñu feneen. wala bis boo xamante ni dañ koo fonk bëgg ko waa Pikine ànd ceeg ñun. Pikine niñ ci àndeek ñun mbër bee ko gën a bëgg waa Pikine te bis jaral na ko te liggéey na lu koy may ndam te incha allah non non déggoo li ma la wax man la Boy Niang lu ko déstabiliser yombul. asalaamaaleykum. père maaleykum salaam maa lay sant waaw. dernier réglage gis nañu open press bi gars yi commencé nañoo ñëw. mu des ay tuuti tuuti rek. alors loo leen di yëg moment bi non instant bi sant yàlla bu baax rek. non instant bi fi ko pare woon bër bi. non doo pare ñun pare nañ. bëri mbër bu mel ni la de Guiers fu mu toll nii lu lu muy def si yéen yokku leen pression wala. non ñun ñun ñun ñun pression mënuñu ko am ci làmb ndax pression moom bu fekkee ne yow li def sentir nga ne yow mën nga ko non pression doo ko doo ko am. booy ñaaw waaw di waajal bés bu mag. waaw bés bi suñu bés la rek bésu Pikine la te bés bii moom wax dëgg fa lu mu laaj rek incha allah dinañ ko ci def ah. te balaa la déggee di comprendre nag. samedi lay comprendre incha allah. mais la dëgër champion la de gain bëri na doole. la te champion moo tax ñu jël combat bi ah. waaw incha allah lay xam ne doomu Pikine bi xale màgg na. sëñ bi maa ngi ziar. ñu ngi si dellu ziar bu wér a wér. Boy Niang di waajal bés bu mag. waaw dëgg la waaw Boy Niang suñu rak la suñu lépp la ñun ñoo yar xam nañ li nekk si moom bu baax a baax waaw di ñaan yàlla yàlla may ñu ndam daal waaw pare nañ lépp lu ñu war a pare vraiment waaw. champion Lac de Guiers nekk euh, champion boo xamante ne VIP la ngeen daw jël ko comme boobu est-ce que dana yomb si daw ñu jël ko de moom ci boppam bu Pikine géejawaay demee ba xam làmb di ko dund tey ji ci Papa Diop la ak Farlaay Balde tey jii ba Double Less di ko dund waa géejawaay am ci amour diggante géejawaay ak Pikine nag ñoo bokk ndey ñoo bokk bàyyi li may wax rek ci fair play nañ ko ci dund mais booy Niang ku mu jël war na koo jël. waaw dégalooy sa baay rek ku ñu la tuddee booy ñaar rek mu doon xale doon champion doon xale boo xam ni fi réew mi toll ku ne xam na ni ku mu jël war na ko jël jël na ko ci sportif mais jël na ko ci nit koo xam ne ku gëm boppam la kon tey jii waxuma la dara waaye keneen ku dul moom sax bu ko jëlee day am ndam. Euh, euh, ki nga xamante ne euh, moom mooy Boy Niang nan ngeen bëggee ndam li bu fekkee. waaw ginnaaw bi ñu sant yàlla julli ci yonent bi di sant Cheikh na Cheikh Sadbou waaw di wax ne làmb ji moom préparé nañ ko waaw ndax xam nañ euh, sunu mbër xam nañ fi mu toll xam nañ ci lim nekk te incha allahu rabbi ñi ngi ñaan yàlla ci barki Cheikh na Cheikh Sadbou mi nga xamante ni mooy sunu sëriñ di sëriñu Modou Gueye muy booy Niang yàlla may ñu ndam incha allah samedi ci kàttanu yàlla. voilà mbokk yi gis ngeen li nga xamante ne moom la gars yi wax fii euh, ci euh, open press bi mais dama bëgg a génn tuuti dem ci kaw paa yi maire yi mag ñi ndaw ñi nan la ñu gisee Boy Niang ak lan la ñuy wax ci booy ñaa pour le samedi 13. mbokk yi ñu ngi pikin ci open press su euh, Boy Niang euh, Boy Niang tey ci lundi war a def open press bu ama am solo mbokk yi nan ngeen ko gisee. xanaa kontaan te di ko ñaanal yàlla. Mhm. li mu liggéey si Pikine si lu baax yàlla na ko yàlla may ndam la 13. dal na am na sutura am na lislaam xam na ñëpp ñëpp la boot booy ñang bañ kenn xale mag jigéen bu xësee ba ñëw si cité bi ñun ñëpp dañuy nërmelu ànd ak moom ndax yarutoon booy ñaa nu muy def booy day def ndànk rek def ndànk tey ñëw daan ko mu daanu Lac de Guiers daa bëri wax daa bëri wax euh, Lac de Guiers nekk champion bu mag am doole lool nag ci combat bi rawatina. noo gisee eh, loolu soxla xam mbër moom da daan yaay na mbër kaamil nga daan. waaw mu la déggee champion la. waaw bu ñu ko daanee gars yi nangu. bu jeexee <laughs> na bu jeexee jeex na. booy bi dégg naa ko mu ne euh, dafa bëgg a am doole am lépp pour bu ko daanee gars yi ne moom mooy loolu. waaw mais combat am yëpp noonu la demee. gars yi ne gars yi ko yëpp doole moom bu ñëwee day def li muy def dem ñibbi. bërëkat la ko waat te gars yi xamaguñ ko loolu la loolu la wax gars yi mais loolu lay wane fi mu tol nii. yaay booy maa ngi siyaar. ñoo yaay booy Boy Niang seen doom war a bëree samedi noo leen dëkkee moom. Boy Niang di xale bu baax du xale bu fonk ay waajuram ñu koy ñaanal li mu yéene si yaayam keroog ba ba mu toxu këram yaayam ñaan ma fii ne mu am na kër dama ñaan yàlla toxu gu mu toxu si këram. mu incha allah mu yóbbu papaam yaayam ak maak ñu yóbbu leen maak si kàttanu yàlla. di ñaan yàlla su bëre bii mu sumba si kàttanu yàlla yàlla na ko ci yàlla may ndam. ndax ku fonk waajuram ku fonk waa ñun ñëpp la respecté. waaw bu rombee dina gaare oto nuyu tante na ngeen def yaayam it bu bërëb bi paase la mu amas néew dina ko jox ni ñaanal leen seen doom kon nag li ñu ñaan si kàttanu yàlla yàlla na ko yàlla may dem si barke laa ilaha la ah damaa bëgg mu daanal ma lak lak dëggeer jël bu set wecc moom booy ñaan waaw waaw lak dëggeer mbër bu mag la de waaw bu dee mbër bu mag ñun suñu yoon dafa nekk ci loolu dañ koy daan dañ koy daan waxal ma loolu lak dëggeer dañ koy yaay booy ma yaay booy nga ne nga ne ma ne dafay duma Lac de Guiers daan ko. mais bu set wecc ci kattanu yàlla ak baaxam ak dem ci barke sëñ Babacar si day am. incha allah incha allah ma ne su dee mbër mu mag faale wuñ ko dañu ko duma daan ko ndax dañuy dem te duñu taxaw ca kanam la ñu jëm ca kaw ca kanam rek incha allah. jërëjëf nga ne Lac la. nga ni la. saa yi Lac de Guiers am na ko man moo ëpp doole da daan soowee yàlla. salaamaaleykum Tono maa ngi siyaar. waaw maa ngi noo gisee combat Boy Niang Lac de Guiers. ndam rek. ah. Boy borom jom la. Uh-huh. ku am jom la. dëkk si fii si Pikine ñu xam ko mu nekk xale bu yaru. waaw bu mun lu muy def. bu lu muy def waaw waaw te am nañ si moom yaakaar. voilà ñu ngi Pikine mbokk yi comme ni ngeen ko gisee ah. Pikine di waajal ba bu mag papa. wallahi macha allah Boy Niang yàlla ko yàlla may ndam. si lu gaaw laa bëgg. lu gaaw kay. Lac de am na doole de. ah Lac de am na doole mais booy ñaa mooy booy mooy booy Pikine. macha allah Eumeu Sène moo ko yar. bul fàttee nag Eumeu Sène moo ko yar. Eumeu uh-huh. Sène tamit bu ñu Boy Niang kii Boy Niang dafa am yar dafa am ittee macha allah day ñëw ci match bi di nuyu waa match bi di jàmm santeeg ñoom. bu ñëwee booy bëree tamit ñun ñu nekk fii ñu ame teeram tamit booy. buy kii ñu jàppale ko. Uh-huh. macha allah incha allah dina daan. kon samedi allah rabbi.